émission taxawu. c'est ça cela fait moins de deux mois. Mm-hmm. tey nga invité waat ma mu nekk mbégte. en tant que président parti justement introduire nga waxtaan bi euh, seen parti bi ngeen taxawal euh, muy euh, pacte est-ce que mun nga dellusiwaat ci naka ngeen ko taxawalee ak justement waxtaan yeeg yu ni mel lu leen xiir également ci def parti parce que yaakaaruñu woon xëy na ngeen gaawe ci nii. waaw euh, mun nañ wax ne loo xam ne dañ ko xalaat lu yàgg la euh, depuis ni ma ko expliqué lendemain élection yi ñu nekk di def évaluation mm. donc ñun bi ñuy def suñu évaluation bopp ci lañu ñu xalaat ne euh, waruñu jafe-jafe yi ñu jànkoonteel biir taxawu mm. ku nekk tas walla ñu nekk ci biir di kaas xuloo bu dul jeex te amul njëriñ donc euh, ci la am say bu takku ci ñun mm-hmm. ñu xalaat ne nañu euh, nañ jëmal ab parti te buñ ko jëmalee ñu dem ak suñu identité bopp ndax dafa am ay valeur yoo xam ne euh, dañ ci ànd yàgg ci ànd xam ni ñuy liggéey ensemble aussi mm-hmm. suñu diggante benn complicité nekk ci mm-hmm. Euh, benn euh, déggoo nekk ci ñu ne lii dañ ko war a sàmm te ni ñu koy sàmmee mooy ñu euh, jëmal parti boo xam ne li ñu gëm suñuy principe lañ fay doxalee li tax ñu génn dootuñu dalati donc ci noonu lañ ko sàmm lañ ko sampee ak mm. vingt six cadres yooyu démissionné woon amoon na ñeneen sax mais dañ leen feeñalul woon ñooñ ñëpp ak ñi ñëw fekk si ñu bi ñu démissionné ba pare ñoom ñu bokk gis-gis ak ñun. ñu ñëw fekk si ñun taxaw lañ nekkoon wala feneen lañ ñu si lañ nekkoon. Euh, bien que ci diggante bi nag euh, diggante ba ñuy démissionné ak ba ñuy taxawal parti bi le 23 septembre am na ñu jógee ak feneen ñu ñëw fekk ñu ak ñu jógee sax euh, yeneen parti politique yi. Hmm. wala ñu musta politique. ñëw fekk si ñu ñu jëmmal parti bi ñu porté ma à la ma leen ci remercier. Euh, di leen euh, euh, remercier ci kóolute bi ndax loolu kóolute rek mun a tax mm-hmm. et ñu nekk na di def suñu vision dégager suñu vision suñuy orientation seen orientation idéologique par exemple lan la. waaw waaw ay socialiste ngeen ay conservateur ngeen wala ay lan réformiste. waaw ñun dañoo seetlu ne Sénégal daanaka depuis très longtemps sàmmatuñu li ñuy wax ay clivage politique mënatoo ne régime bi fi nekk nii euh, idéologie socialiste lay doxal wala libéral boo ko commencé ci régime mu président Macky Sall. Mm. Euh, dafa ne libéral la waaye sa cosaan ba euh, gauche la bokkoon AJ/PADS te bi mu ñëwee jël nguur bi bëri na programme yi mu doxal ay programme socialiste la donc ñun dañoo ne ñun suñu idéologie suñu vision du ci schéma classique yooyu yëpp. parce que nit da nga xam ne chaque temps ñi ñi bokk jamono ñooy inventer seen bopp. Mm. parce que ba ñuy inventé socialisme ak libéralisme ay jamono yu yàgg la te dëkk tubaab yi la jóge woon. te ñoom après ñoo ko importé suñu dëkk yi mm. alors que bokkuñ sax réalité ni réalité sociologique nii réalité économique donc ces idéologies en réalité euh, euh, fonctionnelul parce que même suñu population yi sax bu ñuy voté du ñu voter en fonction d'une idéologie donc même parti yu bëri dañuy wote benn idéologie mais identifié wuñu ak moom selon ni ñuy doxee effectivement donc ñun li ñu ne mooy suñu vision mooy deux ñaari tànk la ñuy doxee mooy benn bi bu jiitu mooy la synthèse beneen bi la restauration mm. synthèse nag boo ko déggee mooy ñun dañuy def la synthèse mooy Euh, tënk lépp li nga xam ne mooy doxalin bu baax. Mhm. bu Sénégal président yi fi mujj yëpp Senghor ba Diomaye dañuy def la synthèse de ce bien marché. Mhm. Senghor nation la créé gis nañ ne jamono ji ñu weesu nation bi am na problème ñu ngi wax waxu xeet ñu ngi wax waxu diine. ñu ngi wax waxu confrérie ba ci biir kër sax ay nit di féewaloo. Euh, ci askan bi it. nit yi di mm. féewaloo. politiciens yi di utiliser sensibilité yooyu ethnique sensibilité religieuse pour di féewale pour des gains politiques immédiats ñun ñu jàpp ne loolu dañ ko war a dogal ñu delloo si waat une entente la cordialité hmm. ñu delloo nation bi fondamentaux yi ba nga xam ne dinañ am nation boo xam ne dañuy suude vers le même objectif muy l'objectif du développement parce que nag dañoo yàgg ci ndóol te génnaguñ ci ndóol nag malgré président Macky waxoon na Sénégal émergent mais émergent bu muy wax yëpp vingt cinq pays les plus pauvres du monde lañ bokk boo jëlee ci dernier IDH yi indice euh, développement humain yi hmm. ñu ngi ci dernier vingt cinq dernier yi donc bu ñu nee dañuy def synthèse dañuy def synthèse li Abdou Diouf defoon aussi Abdou Diouf dafa renforcer l'État donc euh, ñu am ay fonctionnaires de haut niveau ñoo xam ne même bu ñu politikul l'État est là loolu dañ ko war a renforcer mais loolu boo ko bëggee renforcer il faut que nga delloo waat kóolute bi amoon entre autorités yi ak population. Hmm. gis nañ ne Sénégal loolu dafa euh, sooxe woon ndax sénégalais yi mënatuñu wóolu politicien donc pour restaurer maintenant cette confiance il faut que ñiy diriger. Euh, di euh, di dem ci li ñuy wax état de droit mooy respecter àq ak yelleefu doomu aadama yëpp loolu day jën a yokk kóolute il faut ñoom it ñu joxe l'exemple sur les bonnes conduites bonne conduite mooy alalu askan bi nga bàyyi fa donc euh, ñun ñu jàpp ne il faut ñu réconcilier l'État renforcer l'État renforcer son autorité aussi mm-hmm. parce que am na jamono joo boo xam ne gis nañ ne l'autorité de l'État c'est complètement affaissée sous Macky Sall ba daanaka anarchie moo amoon ci réew mi waaw am na ñu wegatul kilifa yi waaw am na ñu yàqule ñu seen jaay yàqu ñi seen alal yàqu loo xam ne état dafa wane absence wane ne mënatul gérer situation donc ah, il faut ñu restaurer ces valeurs de l'état de la république mais de l'autre côté aussi citoyens ñu inculquer leen le respect des institutions ah. le respect du bien commun ba nga xam ne ñoom it dinañ xam ne ci nation bi lañ bokk ci république bi li koy doxal ci lañ bokk mm-hmm. Euh, troisième élément de synthèse bi mooy li libéraux yi indi man je suis contre les politiques des libéraux mais ñun dañoo ne ci synthèse bi lu baax rek lañ ci jël ta hmm. waaw ci li baax li libéraux yi andi euh, la politique des infrastructures maintenant nag euh, ñun dañoo ne dañuy renforcer les la politique des infrastructures hmm. mais duñ ko orienté fi ko libéraux yi orienté woon ndax libéraux yi dañ ko orienté woon yëpp biir dakaar et des infrastructures yoo xam ne aussi tap à l'œil la jën a doon c'est pour préparer une autre élection ñu ngi jàpp ne infrastructure yi dañ ko war a investissement yi dañ ko war a dugal ci gox goxaan yi créer foofu emploi industrie agriculture et cetera ba nga xam ne population yi du ñu gis njëriñu ñëw Dakar donc loolu mooy développement équilibré donc ñu jàpp ne loolu war nañu jël ci libéraux yi investissement yi. Hmm. yokk le chemins de fer ni ko euh, euh, le ministre El Malick expliqué ci plan Sénégal deux mille cinquante bi. Hmm. dañuy développer ay corridors yoo xam ne dina permettre euh, zone yi ñuy installer industrie minière yi par exemple. Hmm. ak zone yi pôle territoire yi ñuy def. transformation agricole yeeg yooyu ñu mun a acheminer les marchandises et les personnes. donc ma jéggalu rek dernier euh, régime bi mooy bii ñu commencé ak le président Diomaye moom muy ote souveraineté donc loolu it ci synthèse bi lañ ko boole la volonté quand même ñu moom suñu bopp ci wàllu koom-koom ba bu euh, problème amee bitim réew mu bañ ñoo dal trop ndax bitim réew bu choc pétrolier amee ñu yëg ko te newul ñun ñoo koy def mm. bu guerre amee dëkk tubaab ñu yëg ko mburu doo blé bi. blé dootul ñëw dootul ñëw. ba mag <laughs> waaw waaw pël yi di jooy. <laughs> <laughs> ah bien que xam naa ñun séeréer yi kat mënuñu si. donc euh, ak pharmacie souveraineté pharmaceutique. ndax gi nga bi Covid bi amee. tubaab yi mm-hmm. dañoo teye ñoom seen i ah, garab ak seen i vaccin. yu yu baax yi ñu defal ko seen bopp yeneen yi mm-hmm. ñuy testé nag. ñu yónnee ñu ko waaw donc souveraineté bi am na njëriñ léegi loolu mooy synthèse. léegi ñu boole ci nag restauration mooy suñu ñaari tànk restauration mooy restauration des valeurs parce que ñun dañoo jàpp ne xarañteef bu ñu mun a am Sénégal am nañu ay borom xam-xam. Hmm. plan bu nekk tëgg nañ ko Sénégal te fonctionnaires yi souvent ñoo koy tëgg waaye euh, euh, ah, valeur yuy téye liggéey bi lañu ñu amut. Hmm. première valeur mooy bañ a laal alal boo moomut damay ne loolu mooy problème mu Afrique bu njëkk mooy dirigeant yi. bu ñu bàyyee laal alal bi rek dinañu réussir ndax am nañu koom-koom Afrique am nañu koom-koom bu am nañu suma koom-koom sax am nañu ressource naturelle boo xam ne dëkk yu bëri amuñu ko mais lu tax mënuñ dem du ñàkk ressource naturelle du ñàkk xam-xam ci jikko bi la ci yorin bi la loo xam ne dëkk yi développé yëpp wane nañ ne seen premier critère ñoom mooy bonne gouvernance donc ñu jàpp ne loolu première valeur la beneen valeur bu ñu war a restaurer la valeur du travail man jàpp naa ne euh, président Abdoulaye Wade bu mu ñëwee dafa yàq jikko yi ci côté liggéey. parce que dafa promouvoir ñoo xam ne amuñu xam-xam amuñu diplôme amuñu euh, amuñu moralité bi mu yéegal leen ci kaw wane ne joxe exemple ne. jarul ngeen di jàng ba dee jarul ngeen di liggéey ba dee il suffit ngeen politique rek nga am alal te loolu bokk na ci li tax ñu bëri di daw di dem ci politique pour mun a defaru donc loolu dañu ne valeur bu ñuy kii la ak euh, promouvoir le culture de l'excellence le culture de la performance mm-hmm. ndax nag loo mun di dégg développement moom ku la dàq liggéey jën la xarañ mooy développement waaw donc loolu il faut ñu inculquer ko restaurer valeur yooyu ñu jàpp nañ ne loolu mooy yoonu développement mm. donc moo tax ñu tënk tànk yooyu la seen parti taxawee alors yow la ñu tabb ngay njiit li wax nga ko sànq sa biir wax da ngeen a meree taxawu génn ndax nu mu doon doxee naka yow nga nar a doxalee en tant que président du parti Pacte ba xëy na la leen naqari woon fële yow ak sa gaaya du ngeen ko mës a ci seen parti bi. waaw fu ñuy njëkk a te ñun loolu dañ ko doon wax bi ñu nekkee bii taxawu euh, mouvement baaxut ndax mouvement da nga koy def autour d'une personne. waaw nit ki bu tawatee ne sax man sawaratuma lépp taxaw taxaw. waaw bu bëggatul dem aussi mu nax saay donc ñun dañoo jàpp ne dañuy def parti parti ay texte moo koy régir. Mhm. nekkul la volonté d'une personne mooy régir un un parti donc bu ñu defee ay texte wax mécanisme yi naka lay demee naka la ñuy falee njiit yi naka la ñuy doonee militant et cetera njiit bi bu demee ba wàcc yoon am ñeneen ñu ko continuer donc ñun noonu la ñuy doxalee ak loo xam ne aussi euh, dañ ko tàmmoon mooy di participer loo ñëpp. Mhm. mooy du ñu ne lii alalu benn nit la moom mooy jënd chaise yi mooy jënd bâche yi. parce que souvent problème bi. kii euh, bu bëggatul jàng yi am rek bu bëggatul jàng yi am rek day ramasse ay chaise ak ay bâche mhm. gis nañ fi président Moustapha Niasse nee na mbir mi mbiram la benn xale du ko ko yàqal. Mhm. dama rafetal wax ji sax ah donc loolu nag schéma politique yu njëkk yooyu ñun du suñu génération te waruñ ko incarner. moo tax lu bees la ñuy andi loo xam ne dafa méngoog suñu génération du lu extraordinaire